nga dynamique bi nga xamantene mom lañu juste euh, Marceline si tu me le permets. dama bëgg revenir ci li nga duggé moy ce qui s'est passé hier concernant notre consoeur Maimouna Ndour Faye. Mhm. Euh, euh, un acte très lâche. ignoble en quelque sorte. ñun tuñu li nga xamantene mom moy suñu réew. Ah. de par les actes de certaines personnes qui se cachent derrière kenn xamul sax naka lañ ko mëna waxé

fayu lañ xam mais ko parce que pensée unique bu ñu imposer ñu loolu mootul yoon xam nga même Ndour Fay a reçu une attaque euh, physique mais suñu confrère dëkk ci kër gi Bakary Cissé a reçu mom, des attaques personnelles mm -hmm. par rapport ak li nga xamante ne bii ni defoon nañ ko euh, Coupe d'Afrique ba ba mu génnee def émission ci euh, premier la collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football ils ont aussi attaqué euh, wala wax ci li le ministre la Diop mais le lendemain les gens ont utilisé des tiktokers des influenceurs soi-disant influenceurs mais ils ont attaqué ce sont des attaques verbales et dugg ci vie privée am dugg wax yoo dara amouti, soo dee seet Bakary père de famille la am nañ njaboot am na ay mbokk mhm. mais xooluñ ci loolu et wax nañ wax ju ñaaw ju ne yëkkati nañ ko fa te loolu dara amu ci ndaxte mhm. ñun ñoo fa nekkoon mhm. loolu tey même cas de figure la donte bii c'est une attaque physique et même dem di jëli supporters yi dafay même quelqu'un ku fa taxawoon ne ko ah de su ma dégguloon li nga waxaatoon ci ministre bi tey dinaa la attaqué Bakary na ko kay attaqué ma nga xool loolu c'était à truc à Yamoussoukro kon tey yooyu dafa nekk cas yoo xamante ni ñu ngi nekk di ko gis waaye nag li may wax mooy toll nañ jamono joo xamante ni bii nii yaakaar naa ne ku ci ne yaa war a léegi aar sa bopp ndaxte koo xamante ni bii nii liggéey na pare na bu mu paree dem liggéey dem këram di ñibbi mu am un lâche un traître dem wëlbatiku dem jàmkate encore ci jigéen il faut être méchant pour le faire il faut être très très méchant pour le faire mhm. maintenant nak comme liñuy wax ci réew mi comme nuñ la démé léegi na ku ci nekk fagaru mhm. parce que comme da ngay wacc liggéey ñu lay bett mhm. ngay dem di ñibbi sa kër ñu lay bett nga nek sa liggéeykaay ñu lay bett yaakaar naa nag ni ben policier mënut a gunge kenn waaye nu ku ci ne nag war nga mun a fagaru ah. man loolu laay wax ku ci ne war nga mun a fagaru parce que lii am démb fagaroo gën faju mm. mais mu naa ngi faju mm. tey amaana jàppaloon ni état d'esprit sénégalais yi yegg nañu fii ah wala toll na fii les attaques na ko nit ñi di bàyyi mm. il faut que les gens arrêtent cette pensée unique bi ñu bëgg a imposer nit ñi loolu moo amul verbale aussi ces attaques verbales ça fait mal ça fait mal di sosal nit ki ci loo xamante ni dara amu ci il faut que sax nit ki am soit

yaa ngi nax sa bopp. Mm-hmm. mais mu a di ko ñaanal yàlla na jóg a jàmm c'est une femme forte. c'est une femme brave. yàlla na ko yàlla gën a jàppale et leer na ma leen su jógaatee ci lay gën a encore virulenter parce que ragalul li nga xamante ne moom lay def. Mm-hmm. voilà c'était un mot c'était des mots qui ont été moom c'est important je m'en excuse. mais mais tout à fait normal euh, même sur heurtee nit moi je pense que c'est tout à fait normal C'est un cri de cœur déjà nous console encore plus c'est très lâche de le faire de cette manière faire jigen elle est dans l'exercice de ses fonctions nga de manière très lâche moi je trouve que. ku ci nekk ni nga wax rek war na fagaru man instant bi maa ngi woo sama doom day borom kën fu wusu tigre d'or comme ça mu jël ma ma commencé def ay entraînement waaw parce que dëkk bi wóoratul dëkk bi comme ça may def ay entraînement xam ngeen xam ne ku ma attaqué am nu ma défendre donc Mbaye tu peux revenir un peu peut-être sur les éphémérides soo jógee ci éphémérides yi nag nga dugg ci sama question par rapport à ces lions qui sont en train de briller en ce moment chaque semaine ñu def ay prouesses. mais bi ngeen def éphéméride j'étais au téléphone ak Babou Ndour. d'accord waaw su fekkente ne mën ngeen ma rafraîchir la mémoire. non dinañ ci dellusiwaat kon dugal euh, tout de suite ces lions yi. d'accord euh, ces lions yi. Euh, Marceline tey émission bi dama ko xaw a seetaan maa ngi doon nekk ak. gis naa daal non en en ce hmm. moment euh, ku ci mel ni